ne wàllu fecc fecckat yi nekk Sénégal ndekete rayante gu métti lañ nekkee fa ñuy liggéeyante wàllu sëriñ fa ñuy fiirante ci seen biir ñu ci bëri yéene wuñ seen morom jàmm ba tax fa ñuy moytuwante ba tey l'observateur fa ñoo xamal mbir mu yéeme yaw seetal fa xam ñaari imaam yoo xam ne fañ doon xeex ngir jiite julli juma allah nekk naan maay jiite xëccoo ba métti rek kurpaña naaw xeex bu métti bañ xàtte leen yëf yaa nga amee ca waay amoo tefes préfet ba nag fa jël dogal ne nañ ko tëjal jumaa ja comme imaam ya nga xam ne ñoo war a digle lu baax moytu fitna ñoom ñooy yee fitna di xeex seen biir man defaa foog ne kanaa julli jumaa ga moom du jiite rek te yàlla rek a tax ndax jiite julli jumaa jaru xeex seen xam-xam ba ngeen jàng de faa leen ko de ndax lislaam fa leeral naka la ñuy tànnee ab imaam maanaam wutul imaama ka ci ëpp xam-xam ka ci gën a rafet jikko ka ci gën a maandu ba ka ci gën a mag su ngeen sukkandikoon foofu di xam ñoom ñaar kan moo ci war a nekk imaam ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de lii moom duñu ko noppee les échos yëgle kaay naan man faaw ñu wax ci ca Italie waa sunu benn doom boo xamante ne aw Sénégal la fukki at ak juróom benn la am maanaam 16 ans da doon dimbali aw xaritam ñu faat ko lii duñu ci wax ay waay doy na waar jiit ak diriger xëccoo ak maay doxal moom ab sénégalais da koo bëgg rek dañuy xëccoo bay xëccoo bay xëccoo ci jumaa yeeg jàkka yi ña nga xamante ne ñooy jiite l'observateur yëglekaay ni ma demal ca tefes laa la wax xëccoo ba fa amoon ni tulleeg màlle ñaari imaam ku ci nekk ni maay jiite jiite jiite ku ne ni maa war a jiite yëglekaay gi naan man julli jumaa de lañ doon jiite jullik àjjuma ubbil yéenekaay tax ñaari imaam yi songoon ni rénkum ak seeni dara ëpp la ku ya naaw ay way gisunu mbaxana ëpp la kurus ya wadd yëglekaay gi naan man ñaari imaam ya dankale ko di dóorante di xeex ngir jiite jumaa yëglekaay gi naan man préfet fa jaar daal ni tëjal ma jumaa ji le fan la fa tefes yëglekaay gi naan man lépp leen na nañu kay ni aw bëccëg moo jiite ndax lan moo tax gaa ñi bëgg ko kilifa yi ku ne di xëccoo jiite ku ne naan maa war a jiite maa lay jiite de yaa may jiite da koo gën a gaaw kën koo yomb te gën koo noppale war na noo xoolaat sunu bopp nag ci wàllum diriger gi ci réewum askan sunu gaal moo ndax gaa ñiy jiite que diriger dañ ci mos dara moo ñun ñi ngeen di jiite de koppar ngeen ñuy jiite ngëm gu dëgër këcca tax ñu ci leen sunu kanam ngeen di doxal kii li muy doxal duñu ci wax système bii kaay ñu wax ci nag moom mooy jiite ak gaynde yi waa mooy coach bi duñu ci wax moom itam yëgle kaay gi naan man Aliou Cissé ak système am Cissé comme sa l'observateur yëgle kaay naan man système de jeu Aliou Cissé bii nag en question dëgg la ne ah man kat damaa xam ni tentative échec nouvelle tentative échec nga jéem échec jéemaat échec dellu jéem jéemati échec bëgg a continuer di bii rek bëgg nu cee rey lii duñu ci wax am na ñoo xam ni nag dëgër bopp nag ca dëgg-dëgg seen mbir am na ci ñooñ laa wax njur tojul seen bopp laa wax l'observateur yëgle kaay naan maan bu dee système bi ngay wax moom bi Aliou na sa su assumé naa lu ci ma lu ci am ma des daal kaay ma xamal la ñun ñoo jël avant ndaare ci sunu poul wëtëtëtët bu nu wattuwul toog de ay waay nanu xoolaat li ñuy def de amaat nan geneen match ci kanam de da seet liir yi ñii doon gaynde di ay ndaanaan di faible bay faible ci seenub dëkk xullee bañ leen di neutraliser duñu ci wax champion d'Afrique bu toll ni Sénégal ba naan faale nu wunu ak la ëpp la bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala levee yëglekaay naan man jaaxle nanu jommi jomet def léegi ko yëglekaay naan daa tontu naan ay waaye ku wax naan sama plan baaxul waxoo dëgg <laughs> ay waaye doom te ngaa bañ a tontoon teg Sénégalais yi le système boo xamante ne buñ la wul nga samp niil saa sunu waxee nga ni sasim waa ñun fu nu jëm sport le peuple yëglekaay naan man match ba de neex neexoon na waaye li ma gën a yéem te jaaxal ma ca match ba mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo di joueur Burkina Faso yi ci jëmi boppam gi bu match bi jàllee ak laata match bi danoo génn seen téléphone portable di filmer chef d'œuvre bu am solo bu am solo bu mucc ayib bi nga xamante ne moo di o stade Abdoulaye Wade bi mag Macky Sall jël jox ko askanu sunu gaale yi dëgg dëgg Sall ngaari merci thank you jaarama stade bi noyis na taarix la wayu du fay su su ay yëglekaay naan ak lu mën a xew gaynde yi ma gis moom tiitalu tuunu jaaxal tuunu kenn laa wax néegu tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na diwaanu Ngor mu di ab policier bu nga xamante nag daal moom daanaka dañ koo daal di dóor bal lépp nag mi ngi am diggante nag la nga xamante ni moom moo di jàppante ya am foofee nekk diwaanu Ngor ñeel nag ay xale yu nga xamante ni daal ñoom ñoo attaqué woon ay policiers yu nga xamante ni daal ñoom ñu ngi bokk ci division opérationnelle de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ñoom ñoo ne sax loolu moo waral ànd na moom loolu daal moom waral mu andi ab jàppante bu nga xamante ni daal tax na ba ay soxante bal daal di ci am loole nag sax moom waral moom policier bi ñu daal di koy gaañ ci moom nag gaañu gaañu yooyu sax gannaaw ba mu amee lañ ko daal di jël yóbbu ko ci l'hôpital waaye nag ñoo ngi ñuy xamal ni ko doon def gannaaw nag la nga Ngor muy wàllum trafic illicite de drogue ba nga xamante ni daal euh, fës na loolu ci bërëb boobee ne lu ci mënti am daal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ñu ngi wéyal di amal seen loolu lànkeer waatam di li ñetti yenn ruqurukaat yi euh, ci yenn bërëb yu nga xamante ni jàpp nañu daal foofee dañ fay def li nga xamante ni moom moo di euh, trafic de drogue ñu daal di wax ci mbëkk démb itam ci aljuma ji yemoo woon ak juróom benn fan eh, ci weeru septembre daal ab gaal lañu jàpp mu nga xamante ni daal dafa doon dépare foofee ne ca diwaanu Mbuur ngir waroon dem nag ca diwaanu Espagne lépp nag ñaari téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ñu daal di teg loxo loolee tax nag itam nekk na gaal gu nga xamante ni comme ni ñu nommee ko yeneen gaal yu nga xamante ni fan yëpp ñu ngi fës ci réew mi gaal yooyu nag daanaka sax liñ ci gis rek moom moo di. ñu bëri ci ñu fi nekk daal dëkkuñu ci biir réew mi ñu ngi jóge ci dëkk yu nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci sous région bi waaye nag taxul benn yoon nag jamono bii ña nga xamante ni daal ñoom ñooy suñu maanaam takk-takk dee di mobiliser wu rek xool la nga xamante ni moom moo suñu ay côte ngir surveiller bu baax a baax gaal yi nga xamante ni dañ fiy jóge te jëm bitim réew lu ci mënti am itam daal fa ñuy gis nañu ko daal ña nga xamante ni ñoom ñoo demoon ci bitim réew ñu bëri ñoom ñu ngi leen di waaj a rapatrier andiwaat den fii ci diwaanu Sénégal VK loolu nag mooy turu ka nga xamante ni daal moom lañ daal di jàpp démb foofee ne ci diwaanu Touba Mbacké moom nag ab arrestation am li tax def ko moom moo di dafa yoroon ñaari kilogramme drogue jóge woon nag foofee ne diwaanu Daara Jolof moom sax ñu ngi ñuy xam ne daal moom diggante ngi xew ak Daara Jolof daal loolee li mu koy daw bëri na ngir yor li nga xamante ni moom moo di drogue boobee ne police yi nag ñoom ñoo daal di jàpp ab oto bu nga xamante ni daal dafa doon daw diggante Mbacké Touba. contrôle boobu sax ci lañ fekk la nga xamante ni daal moom moo di drogue boobee ne waaye itam ka nga xamante ni sax moom moo ko moom donte nag weddi woon na ko ci ci njëlbeen bi ñoom takk diri daal dañ koy jàpp yóbbu ko ca commissariat bu Touba noonu nag la daal di ni moom moo ko daal di moom ba daal ba ni nga ko defeeree ca kanamu procureur de la république ñu wax itam ci beneen mbir bi nga xamante ni daal xew na foofee ni ci diwaanu yëmbal ñeel nag mbiru viol ci ab sëriñ daara moo ni daal moom daal dañoo jàpp ni a dafa doon làmbatu ay ay élève am ba sax am na ci ñoo nga xamante ni bu ñu moytuwul àgg da seen kaw moom oustaz boobu sax ñu ngi ñi xaman ni daal daanaka am na soxna baam ay doom moom nag ñu koy woowee oustaz Loum moom daal la ñu daal di jàpp rek mbirum siif ndax nag moom fanweeri at ak ak juróom-ñett la am waaye tam nag dañ ko daal di tuuma rek mu daal di tëddee xale yu nga xamante ni am nañu fukki at jëm fukki at ak juróom lépp nag mi ngi dooree gannaaw nag ab plainte bu nga xamante ni waajuru xale yi déposé woon nañ ko ci maanaam ña nga xamante ni ñoom ñoo di commissariat gannaaw bu ñu amee lii di seen certificat de médical waa commissariat bu Comico nag ñoom ñoo ko daal di jël sax yor enquête bi waaye itam nag xam ni que nag la nga xamante ni loolu lañ koy toppee daal xaw naa tey xel ba ni nga ko déféré mercredi bi weesu foofee ci tribunal bu grande instance bu Pikine Guédiawaye moom nag jamono bi daal dañ koo téye téewum ndiko ko ngir xool dëgg-dëgg ba xam dinañ am ay preuve ci li nga xamante ni daal loole lañ koy toppee ñu dem itam ci département bu ngara daal di wax itam ci commune bu Diaobé foofu nag ab nit ku nga xamante ni daal daanaka moom dañ ko daal di fekk rek mu daal di génn àdduna moom sax ne nañ dafa maanaam dañ ko fexe daal mu daal di penduru boppam ci ab garab muy lang looyee nag askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yow foofu daal ñoom ñoo rek ñoom ñoo daal def découvert boobee ba ni ñu woowee ña nga xamante ni daal ñoom ñoo di waa gendarmerie ak itam sapeur pompier ni ñu ñëwee ba daal di jël ab néewam yóbbu ko ci poste de santé bu jawbe lu ci mënti am daal moom ba tey jii nag kenn mënagul xam kan la ndax amul daal benn maanaam identification bu nga xamante ni daal war nañ mën a xam kii moom mooy kan ak fan la dëkk waaye itam lu ci mënti am daal jamono yi daal gis nañ ni que ay nit yu nga xamante ni dañuy daal di yemale ay fan ki seen bopp daal loolee bëri na loolu fan yi ñëwee itam ci diwaanu Linguère gis nañ itam na nga xamante ni noonee lu mel noonu awoon na foofee ne wax nag ci benn usine boo xamante ne nii ñu ngi ko def ca Joal Fadiouth muy wol jën di wuyoo ci turu Omega Fishing ñu ne nag boobu lépp usine daal jafe-jafe yu métti lay indil askanu Joal Fadiouth ndax nag saxaar su bon sa nga xam ti moom lay génne askan wa di ko nooyi mu di leen indil ay jafe-jafe ba tax na nag am na kuréel goo xamante ni daal dinañu juddu ca dëkk ba la nga xam te bëgg nañu ko daal mooy ñu daal di jëlee boobu lépp usine ci biir Joal Fadiouth ndax nag sonal na askan ba nga te ñoom ñoo fa nekk jamono jëlee journal bi di enquête quotidien tamit xëy na waxaat ci li nga xam te moo ñeel coowal politique ak pëccëxoo ba nga xam am na ci biir assemblée nationale mu ne nag lu ñeel wàllum déclaration de politique générale boobu ilimaani jëruñ ji nga xam moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina jàpp fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar 2024 noonee ko journal bi daal xam ne Le Soleil yéenekaay xëy na ka dikkaat ci ñeenteelu édition bu bëccëg bi ñu jagleel wàllu set setal ci biir réewum Sénégal ak lu ñeel wàllum sensibilisation yeeg accident yu métti yi am ci biir réewum Sénégal ñu daal di koy dakkal noonu la ko Le Soleil yéene kay daal di xam ne mu ne naka maatam ñoom pare nañu ngir dalal ki nga xam te moo di ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko waaye tamit plage yi nga xam te tere nañ leen ci biir réewum Sénégal am na ci ñooñ ñoo xamante dañuy dem nag defa sangoo te lu ne mel nag mën leen a indil ay jiyee waaye tamit luy toll ko juróom-ñaar téeméeri nit ñoo xam te faatu nañ ci at mu nekk ci biir yooni yi loolee dañu koy nemmeeku waaye tamit deux pour cent de PIB perdu dépollution de la baie malgré le retard des travaux avance noonee la ko journal bii di Le Soleil yéenikaay daal di xamle libération yéenikaay xëy nag moom di kàcc li nga xam te ni moo nekk coowal Cheikh Nakete mu ne arrêté hier après un ordre de conduite émis par le parquet suite à ses auditions à la DIC moom nag ba xam te ni waa DIC daal dinañ koy déglu ci coow li nga xam te yëkkati woon na ko moom commissaire Cheikh Nakete ba moo nekk ki nga xam te moo di ilimaani jëwriñ ji ak président de la république dañu doon xeex xeex bu métti ci biir palais de la république nag daal dinañu koy woo daal di koy teg loxo yóbbu ko ca kaaf ki nga xam te moom moo di président bu mouvement force dooleel askan wi moom nag dana am retour de parquet ni ki altine jëlee ndax ñu daal di xool na nga xam te noonee la ñuy def ay mbiram waaye tamit journal bi di libération yéeni kaay daal di ci yokk ne le parquet compte demander l'ouverture d'une information judiciaire pour diffuseur de fausses nouvelles et requérir le mandat de dépôt maanaam xool képp koo xam te daal di ngay bëral ay xabaar yoo xam te dëgguwul ci mbir moomu li waaye tamit daal di ko yóbbu ci man mandat de dépôt moom commissaire Cheikhna Keita noonee la ko journal bi di Libération yéenekaay daal di xam ne. reste également à la marche organisée ce vendredi contre le directeur des moyens généraux de la présidence qui a vu la ruée d'une foule de disciples mourides à Massalikul Jinaan Bës Jour parle de haro sur Cheikh Oumar Diagne selon le confrère. le long des artères ceinturant cette mosquée Sisa Koloban, les manifestants ont exprimé leur colère contre Cheikh Oumar Diagne pour avoir refusé un soutien financier au comité d'organisation du Magal et proféré des attaques contre leur guide. Il n'aura plus la paix alerte ces talibés mourides alors que les autorités ont interdit la marche pour protéger Cheikh Oumar Diagne. Sa tête a été tout simplement mise à prix selon l'AS. Les éliminatoires de la CAN 2025, notamment le match entre le Sénégal et le Burkina Faso qui s'est soldé par un match nul, intéresse également la presse parue ce jour. Les Lions, but d'entrée, regrettent Sud Quotidien. C'est un coup de sabot d'entrée pour les Lions. Ça ne décolle pas. relève Bosby le jour. C'est un coup d'étalon sur les lions, estime le quotidien. C'est tout simplement l'heure de partir avant l'heure pour Cissé, intime conviction de l'AS qui donne la parole au coach national qui affirme qu'il est dessus. Et dans les colonnes de Sud Quotidien, Aliou Cissé déclare qu'il assume totalement ce match nul. Place à la quatrième édition de la journée 7 7 sous et la sensibilisation avec le soleil qui affiche Le confrère de signaler met les bouchées doubles pour accueillir le Premier ministre Ousmane Sonko et s'intéresse aux plages interdites quand les baigneurs surfent avec la mort. Le Soleil de relever que 700 décès en moyenne sont recensés par an sur les routes, soit 2% du PIB. perdu. ndekete yo ndekete yo Ousmane Bolt astafurla astafurla Ousmane DPG eh bien Ousmane DPG au pied du mur et comme c'est au pied du mur qu'on connaît un bon maçon retenons en tout cas ce que nous livre le journal du groupe des médias comprenez l'Assemblée nationale eh l'Assemblée nationale prend acte de la décision eh bien de la décision qui en tout cas eh en tout cas d'après eh bien d'après le quotidien le quotidien siffle eh siffle la fin de la récréation bon déclaration eh bien déclaration de Sall, Diomaye, eh bien Diomaye met fin, eh bien au débat. Eh et pour éviter, de débattre autour du sexe des anges, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après, eh le quotidien, le quotidien que Sawai Seringundu envoie, eh bien, envoie Korbak, eh à l'Assemblée nationale le prochain, donc prochainement, Ousmane Bolt, Pros, sera, eh sera à l'Assemblée nationale, d'après cette fois, Li quotidien. Le journal Li quotidien de révéler la date, eh la DPG fixée le septembre. Cormac, eh bien, Korbak, l'ami de Sering Ngundu, au pied, et eh au pied du mur. Ainsi, éviter de s'emmurer. Voilà ce que fera Sawai. Cormac, l'ami de Sering Ngundu. Surtout que l'île quotidien, et eh bien, l'île quotidien nous renseigne qu'il s'agit là, et eh qu'il s'agit là d'une décision, et eh qui tranche le débat sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Actualité nationale, et eh bien, actualité nationale, avec cette fois l'île quotidien qui renseigne qu'en fixant, la date de la DPG au et au septembre, monsieur France, Bassirou Diomaye Diakhed n'est pas, alors là, pas du tout, du tout, dans la logique de dissoudre, eh bien, de dissoudre le Parlement. Bon, le bureau, eh le bureau du Parlement prend note et convoque, eh et convoque les députés en plénière ce lundi, informe en tout cas, eh bien, ce matin. il y a Wolf quotidien, il y a Wolf quotidien qui révèle à ça une déclaration, eh de politique générale fixée au septembre, le jeu trouble, eh le jeu trouble de Diomaye, jeu trouble, eh de Diomaye soit, eh bien, quoi qu'il en soit, Wolf Quotidien, Wolf Quotidien cherche à savoir, histoire de faire savoir s'il s'agit là, eh bien, s'il s'agit là de désaveu, eh bien, désaveu de Sawai, monsieur le locataire du palais de la République, infligé, eh bien, infligé à Ousmane Bolt, pardon, à Sonko, ou un sale tour, eh bien, un sale tour au député, car cela ne tienne, eh bien, car cela ne tienne le quotidien du groupe Walfadri, le quotidien du groupe Walfadri de s'intéresser à un sujet particulier de chez particulier, à savoir la crédibilité, eh bien, la crédibilité du premier ministre en question, à la question de savoir savoir, eh bien, à la question de savoir, on est où là Eh les échos, eh les échos de nous livrer, en tout cas, Jomai, eh bien, Jomai tord, eh le bras aux députés. En tout cas, russe, eh, eh bien, pour ne pas que Sonko, eh face à DPG, interroge les échos. Le... Ah système. Ah, yeah, en tout cas daal li nu mérito la am de ci fin match bi parce que kenn xamul daal match bi ku ko seetaan dëgg xam ni on a des joueurs mais on a un problème de placement am nañ ay joueur am nañ ay joueur dëgg la ku am Sadio Mané Iliman Ndiaye ku toll ni moom nga téye ko ba quatre-vingt-dixième minute nga koy dugal loolu sax sa choix la loolu sama yoon ci mais on on a des joueurs de qualité Pape Gueye kan mooy moom ci réew mi ay Nicolas on a des joueurs de qualité mais on a de un, problème de placement c'est ça notre véritable sunu dëggi dëggi problème mooy problème mu placement joueur fu mu war a taxaw fu mu war a tege waaw kan moo war a yóbbu bal be kan moo ko war a jël si problème boobu lan amoon boo bëggee di yéeg di wàcc Ismaïla Sarr lool mënut ne da ngay sonn Sadio Mané loolu mënut ne da ngay sonn Nicolas mënoo topp terrain bi di daw rek da ngay sonn sa ngay sonn c'est ça suñu véritable problème loolu la seeni moo ñu ci génne sax mais dañoo war a na encaisser lu bari mais seeni i Euh, il est brave jàmbaar la ngan di jàmbaar la du mu ndaw sax waaw ah, Seyni Dieng go gardien waaw ma ni jàmbaar la jàmbaar la de Seyni Dieng jàmbaar la ndax xam naa ne jàpp na fa bal yoo xamante ni moom mu jóge daa mel ni kuy défendre mel ni ab ab ab libéro waaw donc donc il est temps que ñu ñu ñu ñu def 4 4 2 moom la ñu xam du ñu ko def. ah man de jom man daal nag réew mi jaaxal na ma wala ñu def 4-3-3 du loolu lan xam am am de am am am libéraux am stoppeur am latéral gauche am latéral droite du lool la xam ah milieu nga am ñetti milieu terrain ñetti attaquant du loolu waa loolu lan moo tax ñun mënatuñ koo footballé wala boog dañu koo tere ah, yenn ni nag de moom xol bu jeex da koy wax wax man ndax ma bu ma sama xol bi jeexee dama ciy noppi de dama ciy noppi sëñ Abdou Salaam Sarr maa ngi lay siyaar jox leen dig daje kon bu subaa ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci riim askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. mesdames et messieurs bonjour. nuy naa ñëpp fi laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex moox la li xew ci réew mi sunu gaal gi jërë ngeen jëw ah, ah, laan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca eh, seet te te te ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu subaak jàmm incha allah jàmm C'est tout à vos journaux très bonne lecture. Que mais la tidong, mais la tidong de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu man a am mbokk ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. <laughs> tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem de ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah